dépôt parrainage yi ca conseil constitutionnel nga xam ne door nañu ko ci altine gi yem ak fukki fan ak benn ci décembre dafay woy ba ñaari fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre buñ ci noppee nag ñu jàll ci tirage au bi ngir définir ordre de traitement dossier jëm ci wàllu parrainage yi sept sages yi ñu war ko amal nag diggante ñaari fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaari fukki fan ak juróom-ñett ci décembre buñ ci noppee ñu jàll ci control parrainage yi. mu def liggéey woo xam ne daañu koy amal diggante ñaari fukki fan ak juróom-ñaar ci décembre jàpp fukki fan ak ñaar ci weeru janvier buñ ci noppee nag contrôle juróom-ñeenti pièces yi ñuy laaj ci dossier candidature bi moom moo ci war a topp ak séddale itam carte électeur yi loole ñu war ko amal ci fukki fan ak ñaar ci weeru janvier buñ ci noppee ñu fësal liste candidat yi nga xam ne ñoom ñoo nar bokk ci jongante présidentielle gu atub 2024 campagne bi nag ci ñetti fan ci weeru février la koy daal di tàmbale premier tour présidentiel ba nag moom daañ koy amal ci ñaari fukki fan ak juróom ci weeru février second tour bu amee nag dañu koy def ci ñaari fukki fan ak ñeent ci weeru ko mars candidat bi ci am ndam nag dañ koy investir ci ñaari fan ci weeru avril waatub 2024